atub saalihaat eh, ñu ngi leen di sant bu baax ci ëtt bi ngeen daje tey di ëttu murid saadix waaye murid saadix boo xam ne nag ci saalihaat yooyu ngeen di bëgg a tudd ci la soqi ko ci la soqi ci ndey ci la soqi ko ci bàyyi kenn ku xam na ne sëriñ Modou Mamoun ay euh, saaliha way juróom ci saalihaat yi la bokk kenn ku ne xam na ne Maamanta Njaay way juróom ci saalihaat yi la bokk moo tax ñuy wax saalihaat ndax kenn ko ne xam na maam Anta lu ko boole ak soxna jaara te soxna jaara li indi bis bii ak bis yeneen soxna jaara moo ko indi waaye la ko booleeg maam Maam Anta Ndiaye xam nañu ko kon nag nu barkeelu ci bis boobu rek ma waxoon ne ginnaaw bu ma waxee ci kër Sëñ Muntaxa ba noppi du ma waxaat dara loolu xanaa jublu ci liggéey bi rek Sëñ Muntaxa moom ah nuyoog taalibe yi ak saafonteeg ñoom moom la tuddi liggéeyub Sëñ Tuubaa ma waxee rek mu ne mooy liggéey bi te te noppalu kon nag li ngeen ci bëgg ba tax ngeen def ko ci ëtt bi soxna roq yi Touré mi meññ suñ Modou Rokhaya kenn ku ne xam na ni ci saalixaat yi la bokk moo taxoon eh, moo taxoon ki fi nekkoon ñu di ko wax Mor di bind lemp yi di bind lamp yi di bind Rokhaya Touré Rokhaya Touré mu yàgg mu ne waaw Rokhaya Touré mii li muy bind ci lamp waaw moom góor la wala jigéen mm-hmm. kon nag jigéen bu ñu demee ba di ko jaawale góor mm-hmm. ah, booba la salihaat nag borom da lu bëree bëri ci alquran loo xam ne sëñ bi dana ci agsi waaye bu ci agsee nag ba wax ko nu ñaan jigéen ñëpp rek ñu roy ci saalihaat yooyu ndax jigéen kat dana dem ba ñuy wax naan jigéen ju mën góor jigéen ju mën góor muy muy andi mbër mu daan ñëpp kon nag soxna jaaram mooy jigéen ju mën góor moo tax mu andi mbër moo xam ne daan na mbër yëpp ba waral ba waral bisub màggalug Tuubaa ak bisub màggalug Daaru saalihaat yooyu ñoo ko liggéey kon nag mm, lu ci waay fas da ko am ci bis bi ak foo mën a nekk ak foo ko mën a fase foo ko mën a fase rek mm, loo ci fas yàlla ak sëriñ bi dana la ko defal ci barkeb saalihaat yooyu kon nag ñu ngi ñaan fu ngeen bëgg rek ngeen àggale ko fa taalibe itam ñi nga xam ne am nañu yéene ñëw te ndigal li tax mënuñoo ñëw walla gàllankoor yi tax mënuñoo ñëw ñu ngi leen sant bu baax te xam ne rek lu ñu nekk lu ne ndigal lee ko ëpp doole ndigalul Sëriñ Tuubaa moom ëpp doole lépp te noonu dañoo fas yéene ko ci ndigalul Sëriñ Tuubaa rek waaw nun defe naa ne nun waa Daaru Salaam bu demoon ba suñ suñ Muntaxaa nenul sax mën ngeen a woote màggal gi te màggal ko na ngeen ko daan màggale noonu suñ bopp noo war a gàmtu ndax màggal yi jiitu màggal yi jiitu màggalu Daaru Salaam ba ci bisub Sëriñ Fàllu bi ba ci laylatul xadar ji ba ci bisub Cheikh Abdoul bi yooyu yëpp nañ màggale war nañ caa mën a roy bu nu sëñ bi ne woon ma de bu leen neexee màggal sax ñun danoo war a ñaan ngant te ne ko doon ko danoo bëggoon a roy ñi nga xam ne ñoo nu jiitu ngir def ko àddee sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa Muntaxa te xam ne la mu digal màggal yi jiitu ku ca roy itam danga am tuyaaba joo xam ne ji mooy ëpp ja ngay am boo màggaloon sax ndax ndigal rek am solo jërëjëf